mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu dal ak euh, ci euh, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Wax aujourd'hui on va parler de l'actualité mais aussi de l'avenir d'un joueur sénégalais Mbaye Diagne Mbaye Diagne donc est à l'ordre du jour de savoir Wax sa Mohamed El Lamine Diop la Mana raw na fi donc euh, di nuyu internet yi comme ni nga mhm. waxé légui tay Mbaye Diagne la ñuy wax ci émission Wax sa Dembu démb nga fi nak. Dembu internet yi nañ la xam nga tax nga ñenn ñi doom nekk fii lu ne wax nañ ko donc euh, voilà émission bi dellu si waat na wax sa xalaat avec mhm. euh, mbay Diagne l' avenir de Mbaye Diagne moom la ñuy waxtaanee tey si émission bi. Mhm. que pensez-vous de l' avenir de Mbaye Euh, mom la ñuy waxtaanee voilà quel avenir pour Mbaye Diagne lolu moy thème bi tay ci wax sa xalaat bi meun ngeen bokk ci émission bi ngeen woté au 78 150 74 72 78 150 74 72 ngeen wax ñu nan ngeen gisee avenir u Mbaye Diagne li sabab nak euh, thème bi peut-être moy euh, Mbaye Diagne relation tendue bi nga xamanté amna ko ak actual club am muy club belge absolument muy mhm. club belge bobu non nga xamné fofu foofu la foofu la nekkoon donc mhm. muy club Bruges fofu la ko Galatasaray prêté donc mu am ay problème tout récemment gis nañu euh, que ne li nga club bi ko par rapport ak euh, trophée mhm. donc mu nekk peut-être euh, problème mhm. donc en Ligue des champions. Mhm. il a su donner ses raisons. donc mais ba légui problème la entre mom c'était des relations tendues. Mhm. maintenant ban avenir pour Mbaye Diagne c'est-à-dire la suite de sa carrière lan moy nek mhm. avenir am loolu la internet mhm. pour vous faire un petit rappel ci histoire bi nga xam mom mo am entre euh, Bruges et euh, Mbaye Diagne moo euh, ça remonte comme niko ko waxé ci match Ligue des Champions bobu naa am te club bi la ak Paris Saint-Germain Mbaye Diagne donc il avait occasionné on va dire un penalty mais beaucoup won ci ñi nga xam ñom ñoo waron tirer penalty bi ci nonu mu daal di nangu bal bi tiré ko faaf penalty bi mu dal di koy raté bobu ba légui nak club bi baalu ko donte euh, am ay sanctions nak finalement écarté nañ ko di du groupe mais mbir mi dafa dem ba jéggi dayo ba nga xamné à un certain moment euh biñu jëlee Bruges def ko euh, li nga xamanté modi champion Belgique dañu dindi Mbaye Diagne ci li euh, nga xamanté modi affiche champion bi mhm. Mbaye Diagne itam dal di dindi place coach bi def ci bopam des ci boppam fa la fa la mbir ya méttee xanaa ba léegi. absolument parce que boo xoolee euh, période boobu noonu mooy li ma wax sànq. Mhm. c'était euh, ay relation yu tendu la entre moom ak ki nga xamante ne nii mooy ko si moom jox raison yi mu joxe woon seetaan benn inter. interview am muy expliquer comme quoi que ne euh, coach bi. bi mhm. muy dugg ci match boobu moom moo ko ne carrément boo duggee. Mhm. dañ dañu la indi fii pour ngay marqué ay buts pour ngay aider club bi. donc mu dugg moom mu jàpp ne de bonne foi bu jëlee bal bi tiiri ko. dafay bokk ci li aidé club bi. Mhm. mu dugalee but bi far yàlla def mu rate ko donc peut-être malchance la amoon jour boobu loolu moo sabab li nga xamante ne ni moom mooy problème ak Bruges mais. Mhm. aujourd'hui man euh, je pense qu'on parle de Mbaye dans sa globalité. Mhm. son son avenir ce qui ce qui l'attend parce que Mbaye Diagne bu ñu fàtte il a il fait partie des des joueurs il nga a des attaquants sénégalais yoo xamanteni ni dañ ko dañ ko mhm. avant muy ñëw di di jouer ci club club club européen yi. Mhm. il y bi muy nekk Chine. on mhm. parlait de lui. donc avant muy ñëw équipe nationale on parlait de lui. je me rappelle bien bi muy nekk Kassim Passa di dugal di dugal bu on avait fait une émission spéciale pour dire est-ce qu'il doit rejoindre l'équipe nationale ou pas. à cette période équipe nationale nous ngi doon préparer li nga mon coupe du monde 2018 il y avait eu beaucoup de polémiques par rapport à sa convocation par la suite il, a été euh, sélectionné pour la CAN 2019 qui s'est mhm. jouée en Égypte maintenant Tejini, est-ce que vous ko est-ce que carrière fin moi ko doon parmi les meilleurs attaquants au monde parce que mhm. Il y a de cela une année, Mbaye faisait partie des meilleurs buteurs Buteur en Europe. Voilà, mm rivalisait avec Messi. Messi Mbappé, nous mm -hmm. rivaliser. Donc, Taïdini, chute Boumouneke, top presque 6 mois jouer. Donc, mm c'est quelque chose qui est difficile pour lui, certainement. Mhm. Maintenant, carrière, bon avenir, bonne tournure, mhm. bonne avenir. Et puis, mom yan décision la nar a jël par rapport à carrière parce que je pense que c'est très important loolu da la ñuy waxtaanee internautes yi mën nañ dugg jox ci seen xalaat. Mm-hmm. on rappelle que Mbaye Diagne il va avoir 28 ans le 28 octobre bi di ñëw euh, mom nak dañ ko prêté woon foofu naam te modi Club Brugge mais y a une possibilité de lever l'option d'achat bi mais bien sûr avec la situation bi ni mu mhm. il est plus euh, proche d'un retour à Galatasaray même si y a ay club qui xamante euh, bëgg nañ ko jël Mbaye parce que comme Lamine l'a dit Mbaye Diagne c'est un buteur loolu moom kenn du ko c'est quelqu'un boo xamante moom dina finaliser l'idée di maintenant euh, le problème est-ce que dina un temps de jeu pour noonu bu demaatee un club rapport de confiance dina am te lay am et comme on l'a dit tantôt, quand il était en Turquie, Djelon, le meilleur buteur Lingam de championnat, je pense que c'était avec Galatasaray, il doublé euh, le championnat, Issam Lingam de Coupe Turquie. Il a rivalisé pas mal de temps, que trio Lingam de top buteur, et am ñom ñoo nek diwanu Europe. Donc euh, koku lañuy waxtané tay. Djel ko. Allô. Allô. Allô oui. Allô oui. Waaw, ñoo ngi sport. Oui sport la waaw, ñu ngi ziar. Tour bi naka la ak fan ngay woté? Seydina Gumbala Nations Unies. ah Gumbala ñu ngi lay ziar bu baax. yaa ngi yegg si la ñu bu baax a baax. Mhm. Mhm. waaw dama bëggoon participer rek. d'accord yow la ñuy déglu. ñu ngi waxtaanee euh, avenir u Mbaye Diagne uh-huh. ñu ngi waxtaanee avenir u Mbaye Diagne yow la ñuy waaw absolument gis nga joueur. Mhm. boo bëggee def carrière. Mhm. da ngay am lu ñuy wax hygiène de vie. d'accord da ngay am discipline. Mhm. allo yéen a may dégg. ñu ngi lay déglu Seydina. très bien voilà comme ni ma ko waxee rek joueur dëgg boo bëgg def carrière bu baax da ngay am hygiène de vie bu normal. Mhm. da ngay da ngay am discipline. Mbaye Mbaye Diagne actuellement il est tenté de saboter sa carrière. ci naka la koy saboté parce koy saboté mooy. Mhm. man li ma la ma jàpp moom dafa am benn indiscipline bu nekk ci moom. ok parce que mënuma mënuma mënuma comprendre un professionnel nga nekk ci ay club yu mag. Mhm. nit ñi bu bu ñu tegee seen seen ay règle nga jël teg fële. seetaan naa ko gala Galatasaray muy jàppante ak joueur si si biir terrain bi. Mhm. loolu un joueur professionnel. pour man du ko def. Mhm. nga ñëw FC Bridge di am ak problème ak entraîneur bi ki nga xam ne moom moo ressource te indi la. Mhm. un joueur professionnel da koy da éviter joueur dëgg carrière bëgg le def carrière ci football nit ñi naw la respecté la da ngay am discipline il faut Mbaye Diagne am discipline bu bëggee def carrière ci football bi. d'accord parce que le football est suivi partout dans le monde le comportement yi boo ko amee. Mhm. club du la merci beaucoup Boumala. merci benn benn club bu la club du jël. Mhm. la merci beaucoup merci. Mhm. donc moom joxe na bah, xalaat. Ah, ay conseils précieux la 78 150 74 72 mën ngeen dugg joxe avis. par rapport ak thème bi ñuy waxtaanee euh, de Diagne je rappelle que démb ñu ngi doon ak. Euh, ñu ngi doon waxtaan si kaaw Souleymane Aw est-ce qu'il doit rejoindre le FC Barcelone ou pas mhm. maintenant demain antenne libre le donc mhm. ñi nga xamanteni dañu bëgg a thème bi demain mën nañu pour waxtaanee thème yi nga xam jot nañ ko waxtaane si semaine bi mhm. mën nañu woote jox si seen xalaat en tout cas aujourd'hui on parle de Mbaye Diagne Sank yaa ngi woon ci aspect bu am euh, importance moy euh, période bi nga xamanteni ni euh, mi ngi mi ngi concurrencer les les grands attaquants d'Europe Yo xamné ne ñu ngi leen di fu nekk ci aduna bi Kylian Mbappé Lionel Messi et tout donc une période où nous mu position c'était favorable pour lui parce qu'il mhm. était à Galatasaray il faisait de bons marchés et tout après l'arrivée de Falcao a mhm. bouleversé les choses parce que vous Falcao mhm. euh, a été après si le quitté Galatasaray pour dem fi nga club Bruges donc pratiquement le club Bruges il s'est pas imposé on peut dire parce qu'il n'a pas joué comme nous voilà donc mm-hmm. en même temps le euh, club Bruges il était euh, convoité par d'autres clubs comme euh, Anderlecht à la mm-hmm. dernière minute ça le l'offre le pour aller signer un Crépin et, tout. Mm-hmm. maintenant aujourd'hui est-ce que c'est un choix décisif. choix maintenant par rapport à sa carrière li parce que nous avons jot informations comme quoi qu'il y a des clubs de championship, il y a des clubs de Premier League actuellement qui commencent à le convoiter pour, pour ce mercato. Mm-hmm. Est-ce que Galatasaray est d'accord ou pas mm-hmm. Donc, le euh, débat là, bo xamanteni war nañ poser parce que Mbaye fait partie des attaquants sénégalais prometteurs mm-hmm. Surtout bi nga xamantene ni commencé na di ñëw fi nga xamantene ni équipe nationale du Sénégal. Mm, même s'il faut dire que ay résultats mi nga club il n'arrive pas encore à le faire ci biir équipe nationale du Sénégal. Mm-hmm. Euh, parce que Mbaye Diagne à un certain moment euh, bi nga xam meilleur buteur il avait réussi à marquer 13 buts. Mm-hmm. ci côté penalty tout le monde se disait que ne bu équipe nationale il aurait pu nous rassurer. Mm-hmm. côté penalty mais malgré ça aussi tant de jeux bi nga xam te équipe nationale il n'arrive pas à convaincre pour amener temps équipe nationale. et tout ça c'est à cause de ses performances en club. il faut aussi euh, préciser que. Mhm. Mbaye Diagne équipe nationale a fait que concurrence vous mettre parce que fait que il y avait d'autres attaquants comme comme mhm. qui avait déjà gagné cette place de mhm. titulaire indiscutable parce que buñ Coupe d'Afrique bi il a joué tous les matchs donc lolo c'est quelque chose boo ramener Euh, mais tout tout aussi dépend aussi de ses performances en club. absolument Vous dee Mbaye am na un comportement irréprochable peut-être ci le club bi ba nga xamante dinañ ko tout le temps muy jouer match jouer match. Mhm. peut-être il aurait pu avoir une place dans ci équipe nationale du Sénégal mais tout dépend de ce que fait en club en fait. oui mais tu sais Nafi les performances en club en équipe nationale mën na tu peux être performant en club ba équipe nationale do doole apporter lu bëri mm. mën nga bañ performance certes c'est c'est pas évident mais moins performant en club ñëw équipe nationale tu te sens plus à l'aise c'est possible aussi mm-hmm. mais man je crois que bi muy ñëw équipe nationale tomber tombé concurrence boo fi euh, y avait d'autres d'autres attaquants qui étaient là donc il faisait il devait faire face à cette concurrence certes on lui a donné sa chance plusieurs fois donc peut-être si la euh, match avant Coupe d'Afrique B si mhm. Coupe d'Afrique B donc il n'a pas marqué de but mais au-delà de ça si on parle de du club Bruges aujourd'hui je pense que moment bi Faidem, c'était pas moment bi à club bi wala c'était pas le moment opportun. Mhm. c'était le moment pour lui de s'imposer c'était le moment pour lui de relancer sa carrière mhm. moment boobu nous la problème à club mhm. donc je pense que l'autre mot, le bouleversé lépp loolu moom moo changé la donne complètement mhm. si si on regarde euh, Mbaye Diagne côté côté joueur on voit que c'est un joueur bon xamante il aime relever les défis ba mu équipe Turquie ben objectif la amon moi que mu terminer meilleur buteur du championnat est euh, un objectif am Turquie bi mi ñëw itam euh, fi nga xam te bridge di Bruges li mu jouer li nga de Ligue des Champions donc tout le temps c'est un jour où il ay ay ay défi euh, c'est pas euh, comment dire pérennité un ci club c'est pas le lay jël tout le temps il essaie de voir là là mën a apporter de plus ci sama biir carrière que ce soit euh, côté palmarès que ce soit aussi aussi côté valeur marchande parce que tout le temps loolu daf koy rôle maintenant ce qui est arrivé est sans béni qui Belgique parce qu'on sait que le club ne veut carrément plus de lui parce que quand dem ba tient la ci affiche bi. le mhm. la prime en plus il a des problèmes par rapport à ce logement ça veut dire que tu n'es plus le bienvenu foofu non mhm. option peut-être de ko ce mu retourner à Galatasaray voilà wala wala mu dem benen club. Mhm. donc loolu moo à ci avenir non mais en fait il peut plus retourner. Eh, fi nga Belgique c'est un joueur de Galatasaray actuellement donc je pense que soit il reste à Galatasaray wala pour rejoindre fi nga xamante ne nii euh, club mais il faut pas oublier que les a tere changé changer club ci période bii parce que FIFA a gagné génnee règlement bu comme pour que une mhm. saison tu peux changer de club c'est-à-dire pour une saison tu peux rejoindre trois clubs tu peux jouer dans trois différents clubs mhm. loolu FIFA bi gagné régulièrement règlement boobu nous ça fait deux semaines mhm. donc aujourd'hui période bi nga xamante le ni moom mi ngi quitter Bruges pour dem ci club c'était pas c'était pas c'était impossible mm-hmm. parce qu'il pouvait pas mm-hmm. xam nga juridiquement mënu ko FIFA permettre ko muy changer club mm-hmm. donc lolu dafa nekkoon si loo dafa bokk ci lo xam daf ko handicapé woon lolu mo waral lolu mo waral tok mais man je pense qu'il aurait dû quitter le club depuis longtemps mm. sur son palmarès on a vu que de 2012 à 2020 Mbaye il a changé 11 fois de club. Mm -hmm. 11 clubs différents yo xamante gis na et je parle pas des clubs yo xamante comme Turin dem na fa ñëwaat fa demat fa ñëwaat fa 11 fois euh, de club en 8 ans. Mm -hmm. est-ce que lolu tamit du du du am dara lu muy wone ci ci personnalité wu joueur bi ba tax ñu bari du douter parce que critique yu bari yi ngay gis ci Mbaye Diagne moy c'est un joueur bo xamante dafa inconstant. euh constant wul ci ay ci ay choix wam constant wul ci ay ay décision am. Mhm. donte dafay dugal ay but. Euh, man na fi je pense que problème problème bi mu bi euh, côté bi mi bi muy commencé ñëw Turquie. Mhm. je pense que c'est le ko nit ñi di gëna a mhm. bi mi ñëw Kassim Passa mais bi mi moment bi mi nek Chine ak yoyu les gens peut-être daan nañ wax ci mom mais pas comme comme comme maintenant. Mhm. tu vois donc ci comme ni nga ko waxee na ay club yu mu jaar def bëri na club yo xamné ne jaar na fa mais xam nga jour des fois di nga toll foo xam di nga soxla plan de carrière c'est très important plan de carrière moom moo lay permettre ngay def ay choix yu baax pour sa mhm. carrière man je pense que entre il, a su gérer sa carrière entre Kassim Passa et Galatasaray mhm. maintenant entre Galatasaray Club Bruges ba fiñ toll je pense que foofu le problème bi nekk mhm. je pense que il s'est battu ba yegg si foofu ba yegg si fii mais maintenant fii mooy période bi gën am importance sa carrière pour nga relancer ko. Mhm. mooy boo chuté il faut essayer de relancer ta carrière dal na jour yu bëri yoo xam ne dañuy dem ci nekk ci kàmb après pour ñu dellu si dañuy toog am ay conseils travail très dur pour mën pour mën a revenir. Mhm. maintenant c'est à lui de prendre ses responsabilités xam lan la bëgg ci car li si des ci carrière am en tout cas bu jéem a xool club boo xamante ne mën fa trouver temps de jeu ba pare mën a wane boppam je pense que man. C'est ce que actuellement. Mhm. et ce sera très décisif aussi pour les euh, les éliminatoires de la Cannes 2021. Mhm. ba ci parce qu'on sait qu'on est au mois de juin jusqu'ici la date n'est pas encore changée. Mhm. donc janvier maintenir ba donc il a six mois. Euh, peut-être pour retrouver Benin club bo xamanté fa lay wala mu Galatasaray histoire de se faire montrer et que mu d'autant plus qu'on sait que les critères de sélection yu à l'UCC. Euh, mhm. Turquie itam bokk na ci championnat yi nga xamante dafay dafay tànnee pour indi ci bi équipe nationale bi. absolument wax na ko ci benn interview mu naan euh, Aliou jot na jokkoo ak Aliou nee na ko équipe nationale kenn moomu ko s'il commence à rejouer il va revenir. Mhm. donc je pense que euh, équipe nationale poste poste attaque bi c'est toujours un débat kenn moomu ko. c'est pas un poste boo xam ne dañ ne diw moo ko moom. Mhm. le jour c'est le joueur qui le mérite moom moo fay jouer. d'accord allô. allô oui. salaamaaleykum kooku du sociologue. moom la kay. <laughs> si loo nekk. démb yaa fi nekkul moo tax woote wu ma de damaa avancé waaye alamin. <laughs> waaw baax na loolu moom xoolal léegi yow boo wootatee naa wax waa régie ñu coupé la. <laughs> boo wootee li ma wax damay wax waa régie ñu coupé la non c'est moi qui vous faut en fait. baax na. comment tu vas naka sa journée. waaw ça va yéen a ngi ci jaamu. ñu ngi sant bu wér alhamdulilah non démb suivre naa la nag alhamdulilah mais dama jàppoon trop trop. parce que waaw waaw waaw t'inquiète pas. xam nga ne bu ma duggul rek moom mooy loolu damaa dugg si ma ne xaaral la xeex. c'est vrai c'est vrai c'est vrai. mais ni noo gisee thème bi tay on parle de mbay Ndiaye. allo Mbaye Diagne quel avenir pour Mbaye Diagne. ok tey moom ci Mbaye Diagne ngeen nekk ah. xale HLM bi. ah oui HLM. waaw. <laughs> d' accord HLM 5 su ma juumul. <laughs> yow mi miin nga ko de. <laughs> baax na HLM 5 laa dëkkoon moo tax en fait. ok. voilà donc taxul tamit ma jël position pour ne Mbaye Diagne c'est le meilleur moo war a départ wala du genre mhm. man moom que la vérité quoi parce que mhm. Sénégal lañ fi nekkal mhm. en fait tey je voyais que thème bi mu nekk jour Sénégal yëpp parce que en fait démb que même ci lu Mbaye Diagne nekk ni Diao Baldé tamit desul de moom tamit moom ci côté bu Peulh desul de. ah oui. ah lui. Mhm. ñaata yoon la changé club. Mhm. voilà donc Mbaye Diagne tey jii problème yu mu am c'est dû à sa personnalité boo xoolee ce n'est rien du football mais quelque chose yi nga xam ne nii personnalité am na quoi comportemental. ok parce que tey jii nii coach ne la bàyyil penalty bi nga ne ma ko bàyyi parce que dama raté woon rek. mais maay tireur fii nii numéro un ñëw xëccoo dugal ak dëgg la dugal nga beneen yoon nga xëccoowaat penalty yi rate ko de ce fait loolu day indi benn genre impolitesse quoi boo xam ne tubaab bi ñoom jël nañ benn étiquette tafal la ko fekk même fekkee yow meloo noonu. Mm-hmm. comprendre nga léegi loolu moo indi difficulté bi tey jii ni club Bruges ñu profité ci penalty boobu noonu mu rate ñu jël ko mettre ko à l'écart tegee ko ne la mel ni koo xam ne soxla suñ ko mm-hmm. boholikbumine konekmezit manke de sanka tot na jël na treize penalty dugal na ko d'accord c'était très bien mais bu mu ñëwee Sénégal est-ce que may nañ ko chance am pour mu prouver aussi bien que Mbaye Niang amoon na difficulté pour trouver filet yi dugalul suma juumul ci kaan bi d'accord loolu yëpp boo xoolee mu ngi ci problème mu Aliou Cissé ci kaw parce que ñun xaaruñu ba mu egg si naa ñu tàccu ne woyu ko aay la affaire yooyu dañoo yàgg gëm ni que ne ce n'est pas le technicien qu'il nous faut. Hmm. man bokk ci Sénégalais yi ko gëm ci laa bokk. d'accord. ci woon bi euh, nu mu tuddati sax ki ko ki gën a jege Aliou Cissé xaw ma Régis Bogaare xaw ma. pourquoi pas ñu dindi ko fa teg euh, Youssou Dabo entraîneur local. waaw loolu est-ce que mais à chaque fois que ñu am dañu tubaab suñu wet. qui <laughs> le fout la paix. d'accord léegi yow euh, sociologue avenir Mbaye Diagne fu mu ne nii nag nan nga ko gisee gannaaw ba am na coow ak clubam bi ñu ngi wax. am na coow ak clubam mais bu ñu fàtte que ne d'après les informations que football yi ñu suivre lamb. Mhm. parce que man footballeur laa déjà nii may waxee ak yéen. yow lépp am na benn club ñaar bu ko bëgg. Mhm. ci fond fondement yu wér ñoom pare nañ ko def offre et tout. Mhm. mais difficulté bi ak benn arrière pensée bi mu ciy am mooy que est-ce bu fa demee Aliou na ko. Mm-hmm. championnat bi. est-ce que du fa dem suul boppam. Mm-hmm. est-ce mu dellu Ligue 1 sax gunul dem Ligue 1 bi nga xam ne nii gars yi CFA lañ ko tuddee peut-être mais Ligue 1 la quand même pare ngi fa yeneen équipe yaa ngi fa du ñàkk offre foofu. Mm-hmm. man ci sama xam-xam bu gàtt moom ci football Ligue 1 du ñàkk benn club bu ko fa bëgg. parce que aussi ay statistiques ñoo ngi fi. gis nañ meilleur buteur gis nañ ne finisseur la quoi. Uh-huh. on se dise la vérité. Uh-huh. voilà donc pour man mu rester Ligue 1 moo gën bu demee fee pour lekk xaalisam la quoi mais bu mu yaakaaraat dara ci avenir wala comme ci équipe nationale du temps. d' accord alors que moom tollagul foofu war na xaar bu Saint-Étienne soo ko mën a dem feneen lekk ci xaalisam ci naar yi nga mm. toog xaar même bu fekkee foofu Ligue 1 la gis. mu mm. topp dem prouver ji après yeneen club yi mën ko laaj moo échelonné waat yéegaat ba fekkaat mu nekkoon incha allah. d' accord ok merci le sociologue. ngi daw merci. <laughs> au revoir. Mhm. Euh, wax na benn point bo xamante attiré na sama attention que ne Mbaye Diagne instant bii nii bu mu parce qu'il a 28 ans quand même il aura bientôt 28 ans warul dem comme instant bi cas bi critique na rek bu la bu Galatasaray gisé benen club Ga ni daf lay euh, al bobu club mu xol itam ban championnat lay dem. recrutement bi championnat bi ngay dem da fay euh, jouer si si si carrière internationale parce mhm. qu'il ne faut pas oublier la CAN 2021, c'est au mois de janvier, si, si toutefois changé au nous date. Mhm. Donc, li nga xamante ni éliminatoire CAN bi il y a la coupe du monde 2022 mhm. au Qatar éliminatoire coupe du monde bi ba léegi donc tey jii ku ci c'est valable c'est c'est pas valable pour Mbaye Diagne seulement tous les jours de l'équipe nationale ku ci nekk club bi ngay dafay dafay mën influencer si ce si say euh, si ce sélection en équipe nationale. tu mhm. vois un peu y a yenn club qui xamante ni c'est c'est ay championnat championnat là yoo a ne duñ ko suivre wala championnat boo xam niveau bi. Mhm. d'affaires c'est c'est tout à fait évident que doo mën rejoindre équipe nationale. Mhm. je pense que le débat boobu sax sélectionneur bi aussi Cissé mos na ci prononcer que par exemple jour yi nek ay de kunar wala Chine mon parewul pour pour sélectionner mhm. donc je pense que man à mon avis que buy def choix dina def choix à monter et dina ko permettre de mener jouer ci championnat bo à me day relancer carrière pour mener d'elle ci en équipe nationale. Mhm. c'est le mot qu'il faut se relancer. parce que bu dee étape construction carrière je pense que Mbaye Diagne dépassé na étape boobu mhm. maintenant nak parfois nga construire dem bay foog ne paris nga am ay affaires yoo xamante dafay ñëw ci carrière bi carrière joueur moom moo demee noonu instant wu relance la toll instant boo xamante euh, dinañ ko mën a permettre en tout cas mu joxe euh, considération yi nga xam ne moo ci war ba club bi jox ko confiance am mën koo bàyyi mu dem mais si on revient toujours sur le cas de Mbaye Diagne dafa am benn mbir boo xamante moom mooy feeñ ñu jël internet bi mhm. salaamaaleykum maaleykum salaam salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi si jaam bu baax alhamdulilah tur bi naka la ak fan ngay woote. waaw d' accord yow la ñuy déglu si débat bi ñu ngi waxtaanee avenir u Mbaye Ndiaye. avenir waaw. <laughs> yaa ngi may dégg. ñu ngi lay dégg ah. <laughs> je pense qu'il mën nañu enchaîner ak yeneen appel bu fekkee mm-hmm. am nañ ko bu ñu amee yeneen internautes rek Amina Diagne mën nga leen euh, dugal ci biir émission bi mm-hmm. la foog naa ni ñi ngi ñi ngi ñi ngi tolloon ci étape bi nga xam mooy relance su carrière am nan la ko war a mën a defee on s'est bien entendu ci club yi nga xamante fa la war a mën a wala championnat yi nga xamante daf ko war a éviter mm-hmm. lu ci mel ni championnat euh, Qatar peut-être Qatar comme par exemple fi na am te <laughs> fa la ñaa bëgg a dem allo

pendant un an ou bien pendant six mois mu jéem a xool mu jéem a xool maanaam ban avenir lay joué quoi. mu resté fan. mu resté club euh, bi mu nekk parce que échec bi fi mu toll fi mu nekk nii mënuñu ko libérer à temps man man man boo gis moom mu dem quoi. ok waaw man bon je préfère mu je préfère mu resté quoi. Mm-hmm. ba ba ba ba affaire leer quoi parce que mën na dem aussi ama mën na dem te fi muy dem aussi xamal xamal lu mu fay fekk. Mm-hmm. loolu yëpp aussi mi ngi ci quoi. Mm-hmm. waaw parce que ñu ay fan a quoi vraiment xam nga boo ko dëkk dëkk dëkk HLM Medina Fass Colobane xam nga vraiment li ñu koy souhaité daal mooy mu toog as boobu maanaam ba gisul leen quoi mu xam nga mu doog a dem quoi. d'accord. waaw xam nga il faut mu dugg rafetlu loolu xam nga dem si andi ay ay ay dégg quoi fekkee bi may dégg bokk. Uh-huh. ne ko daal sa fan si bu la Mouhamadou Lamine Diop nee na nga toog nga xaar ba gisul leen nga doog a dem. d'accord waaw loolu waaw loolu rek laa koy loolu rek laa koy loolu rek laa koy jox comme na soo quoi. d'accord. waaw vraiment ma leen di gërëm bu merci beaucoup jaajëf mhm. merci. ok merci beaucoup. merci beaucoup. Merci pour le soutien à Mbaye Diagne. Chef Falner, il doit, mhm. il doit continuer l'aventure avec Galatasaray mm et mhm. surtout changer d'attitude. Mm Je pense que internautes yu bëri ñuy def ay commentaires ci ci comportement am la ñuy wax côté côté personnalité la ñuy la ñuy gën a la ñuy accentuer débat bi. maintenant avenir am. certes personnalité bi daf ci am solo mais le décès avenir, avenir comment il va, il va gérer ça Moi, je pense, Donc, mmh. Moi, je pense qu'il va pas rester euh, dans le club belge parce que il avait quelques mois pour retourner là-bas. Voilà, depuis, depuis juin, tu dis. Allô Ouais, le sociologue de retour. Oui, le sociologue. ah dama dégg Sénégalais yu bëri melni ni dañoo xamatul lu xew wala la na toog Galatasaray na toog Galatasaray. déedéet ñoom nee nañ na toog Belgique. na toog Belgique fan lay toog ci entraîneur bi nga xam ne moo ko mettroon à l'écart la les côté mm-hmm. ci entraîneur boobu lay dem rejoindre ak encore mu traité ko comme moins que rien <laughs> Galatasaray daa jënd euh, neuf bu tudd Radamel Falcao loolu duñ ko fàtte mm-hmm. kooku pour rien au monde mu toog ci banc bi ça voir même le capitaine mm-hmm. voilà donc bu fa delloo day dem toog ji na le xaar ba ay coupe peut-être ñu kaa dugal mais championnat cent cinquante journée sa boobu Falcao bu mooy départ su yëpp blessé wul wala mu dem. voilà bu fa delloo naka leer na que ne place titulaire bu mu fa amoon ak di toj boobu perte na ko. tey jii on aurait bien aimé eh, mu delluwaat ci case de départ ba foofu ko parce que fa la déggee daal mais bon actuellement nii ak joueurs yi Galatasaray sa impossible. Belgique bu fa delloo ñu traité ko comme moins que rien man ci lu ma gis kon sa affaire yi tijjeegul carrément kon ni ma ko waxee sànq loolu lay confirmer bu dee ba dee dina am benn proposition Ligue 1. Mhm. bëgguma bëgguma wax ban club la exact dina ka am na dem foofu nekk di neuf indiscutable bi. Mhm. jéem a toj foofu. Mhm. yeneen club yi laaj ko après mu surmonter mu dem. te kon li ma waxoon problème yi mu am yëpp par rapport ak comportement la attitude am. na bàyyi metti bi trop quoi a parlant. d'accord reste modeste après bon le reste ira incha allah. mu noonu nee na ba mu retourné nëw am ba occasion yeneen offre mu dem foofu mhm. c'est possible mën na pourquoi pas pourquoi pas bu fekkee am na euh, fi muy dem tout dépendra si temps de jeu temps de mhm. jeu bi muy parce que bu ñu jëlee aspect sportif bi teg moom la ñu war a mettre en avant mhm. fépp fu muy dem mu mën a épanouir mu mën a jouer mën a marquer des buts je pense que loolu moom mooy lu am importance. allo. allo. alo oui salaamaaleykum. allo. allo maa ngi bi na def tur bi naka la. maa ngi ak Mame Mbaye yaa ngi ci biir émission wax sa xalaat bi yow la déglu. waaye yow moo naan tey tey. tey ñu ngi waxtaanee ci avenir Mbaye Diagne nan ngeen ko gisee. may Diagne pour mu toog Galatasaray Saray wala mu quitté. ah yow yaa yow yaa xool fu mu ne nii dafa war a toog wala dafa war a quitté. pour man dafa war a quitté quoi. lu tax. c'est que talaa bi mu am doonu sóor boo xam ne dafa war di toog ba ak yooyu noonu dal pour man mënoon a jéem a dem beneen équipe donte équipe bu ndaw la sax mu jéem fay wane dooleem quoi pour que équipe nag mën ko lik waat parce que Mbaye Diagne sóor la boo xam si ne dafay créer ay occasion yu baax dal Mm-hmm. pour man daal la quitté loolu daal sama xalaat ci moom. d'accord jërëjëf Mame Mbaye. ok merci beaucoup. Mm, jaajëf mais Alamine tey bu ñuy xool ay performance su Mbaye Diagne yi naam te def na ko Turquie nekk fa meilleur buteur comme ni ma ko waxee doon rivaliser ak trio d'Europe bi est-ce que Mbaye du moom ci boppam parce que ku dugg rek nangu nga ni mbay Diagne am na talent mais est-ce que du Mbaye moom ci boppam. moom moo yàq talent wu fi mu ne nii ba ku nekk di douter ci moom. Mhm. c'est un buteur. mais est-ce que du mbay ci boppam vous ne ba commentaire. Mhm. c'est un problème d'attitude il doit revoir son attitude. Mhm. peut-être sa personnalité mais nous vous en fait foofu côté boobu aspect boobu lañ koy lañ koy critiquer. Mm-hmm. mooy xëccoo penalty ak yenn problème yi ak yooyu noonu. Mm-hmm. problème bi ak euh, coach FC Bruges moom moo gën a fës. Mm-hmm. parce que loolu moo créé coow li la preuve gis nga tout récemment prix biñ ko biñ ko bañ a bañ a jox. ak bi nga xamante ne nii euh, après li des si championnat bi en tout cas club bi gis nga ni mu ko écarté coach bi ni mu ko mettre à l'écart donc tey ni peut-être loolu yeb mënoon na bay mënoon na ñàkk quoi si sama xalat mhm. loolu yeb mënoon na ñàkk il pouvait gérer ça moment bi nga xamante ni mi ngi jouer même bu fekkee ne il voulait bien faire en tirant ce penalty ci match bobu noonu contre PSG. Mhm. mais bu capitaine bi ñëmé ba ñom ñaar ñu am xëccoo dal bi mu ci amé en tout cas peut-être il a voulu marquer ce but parce que yag na ko def muy marché. parce que mhm. bu ñu fàtte ne lolou noonu ko dal jour bobu noonu Mbaye Diagne yag na. jël ay penalty avec mhm. Galatasaray di ko tirer. Mhm. fekk da ko mu xëccoo mu koy dóor muy dugg. Mhm. je me rappelle même euh, équipe nationale je sais plus c'est match am na xamatuma ban match la. Sénégal si Coupe d'Afrique bi jël na penalty bi Gana Gueye euh, daf ko bëggoon dóor. Gana géey bu ne ko noonu. donc je pense que aspect boobu rek lay defaraat ci carrière ak attitude bi attitude bi parce que jour loolu personalité bi dafa am dafa am solo ci ci footballeur c'est qui a Didier Drogba ou Samuel Eto'o, comme comment mm-hmm. ils étaient de très grands attaquants, au-delà de leur talent, mais c'est une personnalité. Il faut donc refléter c'est une carrière. Mm. Pour dire que le joueur, ce n'est pas seulement le talent. Ce pas, le talent seulement ne suffit pas. Voilà, il y a une attitude, un comportement, bien vrai que ni amna lo xamanté mom ngay wone ci terrain bi ci terrain bi le concerne, il y a d'autres choses yo xamanté euh, sa vie privée là mais quand on mélange euh, ñaari mbir yi rek après les gens ne comprennent pas il a reçu pas mal de critiques euh, bi mu jënd bi mu jëlee euh, li nga xamante moo di affiche bi changer place ou place ou place coach bi def ci boppam c'était quelque chose boo beaucoup de personnes n'ont pas compris lu tax mu def ko surtout observateurs yi nga xam te ñoom ñooy dans le domaine professionnel du sport je ne parle pas des autres personnes yi nga xamante ils travaillent pas dedans et que ñoom côté fan la ñuy xoolee en fait mais dafa am lenn loo xam te bu ko joueur bi wane après dafay déclarer peut-être la guerre ouvertement peut-être Mbaye on peut comprendre une chose il est revenu euh, bleu il est revenu à Bruges pour régler le problème le temps que contrat homme de guerre, il avait un mois pour pour en tout cas nous de sorte que coach Bibalko et que nous revenir mais le coach aussi n'a pas voulu faire de concession avec Mbaye peut-être à ce moment-là il s'est senti gêné mais euh, comme nous connaissons pas, waxee rek tey day histoire Même même changer club tes prochains dirigeants ils te regarderont comme ça même bo changer club tout dépendra si niñ fay ñëwé je mhm. pense ak liñ leen apporter. Mhm. parce que on est performant du marquer ay buts je pense que parce que football mom en fait les choses évoluent. Mhm. les choses évoluent Si on est performant on nek ak ñom ci attitude bi xam ambiance bi neex. et tout il y aura certainement pas de problème. maintenant su fekkee ne même même problème yi moom mooy amaat après lu muy nduru club ça va ça va ça va ni lay def. Mhm. en fait rien ne sera plus stable comme avant. Mhm. donc je pense que ni mu def à Kassim Passa di marqué ay buts def ko Galatasaray ci ay début. Mhm. di marqué ay je pense qu'il doit. je pense que c'est Mbaye qui doit revenir. pour pouvoir être euh, numéro un hein, parmi les attaquants. d'accord allô. Allô Allô, oui. Allô, oui. Allô, oui, Je suis euh, d'accord y a ci petite émission bi wax sa xalaat yow la déglu. participer ci émission dama di top tout le temps dama leen di topp ne tey laa am chance pour dugg si émission bi. jaajëf wootee Cap-Vert. Cap-Vert d' accord benn jour bu tudd Abdou Diop bu nekk cap waaw léegi ci à propos de Mbaye bi laa bëggoon a jox sama xalaat. waaw Mbaye Diagne comme man ni ma ko gis sama gis-gis euh, nekk na jour boo xamante ni am na talent. Mm-hmm. mais comme ni ko gars yi waxee rek peut-être comportement moo xaw a moo koy xaw a yàqal si lu bëri souvent man dama koy xoolee comme comme Mario nii rek mm-hmm. mooy idoolam am nañ talent xam nga lu ñuy li ñuy def mën nañ ko mais nag xam nga comportement tamit dafay bokk ci ci ci nit mm-hmm. ak actuellement nii ak euh, condition yi nga xamante ni moom la nekkee Belgique man gis naa ni euh, sama gis-gis Mm-hmm. dooru fa mën a delluwaat même Galatasaray boobu tamit booy xool am na benn copain bu dugg léegi expliqué ci mm-hmm. expliqué foofu man a moom ñoo si bokk vision mm-hmm. man li ma gis sama gis-gis daal su fekkoon dafay instant bi pour wutaat club pour jéem a xoolaat carrière am jàpp ni bu demoon bu bu amee club bu Ligue 1 na fa dem ba retrouver waat euh, niveau mën a amaat chance pour rebondir dem Angleterre wala wala benen club yu yu gën a am mu gëna a am ko mu ci progresser la loolu dal la sama jëfis gis yéen moom maa leen di gërëm di leen sant damay top ci émission bi tout temps maa ngi nekk calvaire merci beaucoup jaajëf ok merci beaucoup di ko rafet mhm. jaajëf Ousseynou Fall jërëjëf mi ngi noonu internet bi doon ñu depuis Cap-Vert moom nag li mu wax mooy euh, mbay Diagne bu gisee xamante bu fa prouver Aliou Cissé da koy woo ci mhm. sélection bi. Mhm. Mhm. Euh, Ligue 1 nekk na championnat bo xamanteni ni nii euh, foofu la mbay ñaa nek abib Diallo ma nga fa. Moussa Konaté. donc bëri na ay joueurs sénégalais yo xamanteni ni nii euh, def nañu Ligue 1 donc je pense que choix la bu baax pour mom si toutefois mu rejoindre Ligue 1. d'accord allô allô allô oui salam salaamaaleykum. alors. sëñ bi ñu ngi lay déglu ah. tur bi naka la. waaw nañ def sax. sant bu wér. bu si jàmm rek. sant rek. sàmm maa ngi wootee euh, tournal bul. yaa ngi doon wootee. waaw may rafetlu jot émission bi. d'accord jaajëf. allo waaw nañ def. da dégloo ak sa téléphone nga wàññi retour bi. du nga gis léegi wax si Mbaye Diagne quoi mais su ah. da ngay dégloo ak sa téléphone nga wàññi retour bi. waaw wàññi naa ko waaw. waaw déglu ak sa téléphone. waaw. Ah. voilà ñu ngi lay dégg dafa jeu boo xamante ni dafa prolifique quoi dafa am am na temps trop. Mm-hmm. am na talent si li muy def mën na football mais lu lu koy lu ko yàq rek mooy lu ñuy wax rek. Mm-hmm. Kassim Passa fa ñëwee fi la def meilleure saison dugal na fa ay biir yu bëri si la ko Galatasaray ko Galatasaray jëlee ko man dama moo debat d'accord baax parce que Galatasaray bu mu bàyyi Mbaye Niang boobu lañ gën a am attaquant quoi échange bu léegi ñoom mooy problème attaque mu daal dem club fee Belgique man dafa ko am loolu lépp nekk jeu affaire professionnelle tout quoi foofu la warul jël quoi il faut que ay joxal rek c'est moo def sax mu génn

Euh, ngir ñu mën koo dégg bu baax maa ngi koy dégg mu naan fépp fu mu mënti dem itam mu jël temps am euh, construire fa euh, carrière parce que changement de club yi aussi chaque saison dafay tax sa performance yi peut-être de constant bien vrai que ni gis nañ li nga xam te moom la def Turquie mais apparemment constance bi nga xam te moom lay def ci performance mi daf koy wàññi. Mm-hmm. performance yi wax ah, waa. jëlee internet allo allo. allo Halo. Halo. oui Halo, allo oui oui ya, asalaamaaleykum maaleykum salaam tur bi lamp la ñu ngi depuis brésil D'accord lamp yaa ngi ci biir émission wax sa xalaat ñu ngi waxtaanee li nga xamante ne nii moom mooy eh, di laajte ban avenir pour eh, l' attaquant sénégalais Mbaye Diagne ah l' international Mbaye Diagne bon gis gis naa annonce bi démb ma programme woon heure bi pour dugg parce que différence horaire bi dafa bëri. Mhm. mais juste sama ah, sama opinion si loolu mooy. Mhm. moom bëri na club yi koy tenté Mbaye Diagne. Mhm. vraiment joueur bu am talent la. attaquant buy dugal ay buts tamit. gis naa ne war na mën a delluwaat ginnaaw prem jeex na Bruges war na mën a delluwaat Galatasaray. impo imposé wu pourquoi pas jéem a imposé wu wane wane wane li mu mën. bañ a daw concurrence bi. parce que bi Falcao ñëwee man pour man dafa waroon des Galatasaray. Mhm. comme mi ngi doon dugal mi ngi dugal ay te aussi équipe bi bëggoon nañ ko. Mhm. moo tax ñu jënd ko parce que boo gisee prix bu ñu ko jënd rek nga xam ne club bi bëggoon na ko. Mhm. donc amoon na fi war na mën a toog foofu. jéem a discuter ak Falcao mu xool. bu defee différence sûrement coach bi dina ko teg c'est pas parce que Falcao dafa ñëw rek dafa waroon a quitter club bi quoi. d'accord. mais man moom day dem ay delluwaat. Galatasaray. Mm-hmm. jéem a football foofu parce que moom li muy def changement de club dafa xaw a bari. Mm-hmm. te en général moom club bi muy football yëpp presque six mois la fay def changé waat club dem dem ci beneen club. Mm-hmm. donc doo am constance et puis aussi doo régulier si say performance jàpp naa loolu moo koy xaw a yaaxal tuuti rek mais bu constant woon si benn club. dafa benn durée dina prouver lu bari quoi. d'accord. c'est nekk sama xalaat quoi. maanaam merci beaucoup jaajëf jaajëf mhm. mi ngi retrouver fin ñu ci débat bi constance et performance et peut-être bu toogoon ci Peut-être dina ko construire ci club mais itam construire xaale ko ci carrière comme par exemple Galatasaray mhm. certes c'est vrai que que ce sama début propos li ma est-ce qu'il devait rejoindre le club Bruges mhm. est-ce que wadi ji wax est-ce que bi ou ñëwee c'était un bon choix pour lui de d'aller d'aller retrouver un autre championnat wala mu dem beneen club. donc mm -hmm. peut-être mënoon soit c'était un deux choix mu toog ah jéem gagner place am foofu ou wala mu dem beneen beneen championnat je pense que am nañ beneen appel mën nañ ko Allô Allô salam salaamaaleykum sëñ bi na nga def salaamaaleykum salaam na ngeen def. sant bu bi Mala Sakho. Sakho d'accord yaa ngi ci biir wax sa bi yow Sakho kii France. Euh, boy boy Marseille bi quoi. Sakho. <laughs> Sakho waaw. <laughs> d'accord. maa neen leen ziar waaye di nuyu ñëpp euh, di rafetlu waxtaan yi macha allah fi ma nekk xam naa du ma mën a yuuxu ndaxte maa ngi tribunal ci procès kii bi quoi nu mu tudd Lamine Diack ñu ñaanal ko waaye dégg ngeen. d'accord waaw incha allah ñu ngi ci procès bi nii mais te lay tey tey mooy dernier jour bi quoi di ñaan yàlla sénégalais yëpp ñu ñaanal ko mu génn ci jàmm ndaxte. soxla ne delluwaat dëkk ba daal. Mhm, mhm. balaa ñu dugg ci thème bi. naka ah. nga gisee Lamine Diack moral bi ça va. waaw waaw ça euh, xam nga rek namm na Sénégal moom wax dëgg yàlla moom moom luñ ko mënta teg attan na ko mais saa dem dem dem dem ci sa sëtam yeeg doomam yi moo gën a yitteel daal. d'accord mhm. mais moral bi ça va ba parce que ku deful moom xam naa ne <laughs> doo am looy tiit daal. waaw di ñaan yàlla mu génn ci ak jàmm. alaama amiin di ñaan Sénégalais yëpp ñaanal ko ko incha allah. Mhm. ndax mérité na mérité na mérité na mérité na xam nga dund afiyaam quoi franchement. Mhm. waaw ma ci thème bi euh, gis maa ngi dugg ci lii sax ba fàtte tur euh, suñu suñu suñu zone bi nu mu tudd. Mbaye Diagne. Mbaye Diagne man damay naan bu mu delluwaat Turquie bu mu fa dellu. na ñëw jéem a ñëw au moins sax mu ñëw France. Mhm. bu mu mënul ñëw France toog fi mu nekk te jéem a changer attitude am parce que gis nga équipe da loo xamante ne que nii danga koy man jaru sax ñuy sori. Mhm. ma jëlal exemple ci Sadio Mané. Mhm. Sadio Mané benn yoon lañ ko gis mu génnee cri de guerre te loolu seen normal àdduna bi yëpp ci tegoon bëtam. Mhm. ci digganteem Mohamed Salah. dëgg la. mais doo ko mus gis muy xëccoo dara ci biir équipe bi. mais dafa ñëw prouver li tax tay ñu def ko vedette bir Liverpool bo dindé Sadio Mané Liverpool Liverpool jeex hmm bo démé ba tay ñu naan Real bu ko bëggé nañ fay 230 millions. ça mhm. veut dire que bëgguñu ko sax jaay. hmm ngi mhm. sacrifice bu mu jël pour euh, kii nu mu tudd euh, euh, kii waay Mohamed Salah. Mhm. gagné ñaari yoon trophée Ballon d'Or. Mohamed Salah delloowu ko njukkal boobu noonu mais terewul. dafa simple ànd ak xam xam ne moom jour la te mën na li muy def boolu ca coow mais boo demee ci club ñu lay jox penalty nga rate ko ñu ñu ne la bul dóoraat ngay insister mais dafa mel ni que yow yaa sa entraîneur bopp. am na mhm. club yoo xam bëgguñu loolu. Mhm. moom loolu fu mu fu mu toll loolu lañ ko taqal motif ba tax na tey jii mi ngi toog ci banc bi. Mhm. dañoo war a xam ne ne am na foo xam ne boo fa tolloo mënoo xeex parce que doo am ay garde. Mhm. joueurs yi loolu la ñu war a xam am na foo xam boobu Sadio Mané moo gën a mérité tey kaas toog ci table bi mais xoola salaire am. Mhm. Mohamed Salah moo copie salaire Mohamed Salah mi ngi laal presque douze euh, euh, euh, douze xaw ma et quelques et quelques millions par. par année Sadio dix Sadio dix lay laal. moo ko ëppale mais teewul est-ce que kaas na. Mhm. mais mi ngi xeex tey jii Real mu ngi koy xëccoo te Barça mi ngi koy xëccoo équipe mag yi nekk ci àdduna bi it bu ñu sañoon am saajo Mané la moo ko may jom fulla fayda liggéey. Mhm. jour boo liggéeyee benn club du la xeet soo gisee tey jii nag ñuy toog di naan war na dem feek war na ñëw fii war na gis nga jaaw bal li ko dal boo moytul kii itam loolu moo koy dal nañ liggéey club yi seen bopp ñoo leen di soxla bu boobaa. Mhm. liggéey te xoolal boo liggéeyee wóor na yàlla. Mhm. doo doo soxla sax naan da ngay taamu club club yi ñoo lay taamu bu boobaa mais boo demee ba yow ngay taamu naan da ngay delluwaat ou bien da ngay demaat ça veut dire que y deux trois mois quatre mois quatre mois xam naa ne Aliou Cissé Soph du ko woo parce que am na booy yu saf sap yi ñëw. Mhm. am na booy yu saf sap yi ñëw. Mhm. waaw di ko ñaanal nag bu fekkee nit ñi dégg na bu fa bu naree jugee fu mu nekk na ñëw na ñëw <laughs> na ñëw France mais bu mu delluwaat Turquie parce que c'est toj na fa def na fa jolore macha allah mais man ñaanuma yàlla mu delluwaat gannaaw na jëm ci kanam moo gën te nay liggéey liggéey bi du question dem ci entraînement non sax a liggéey. Hmm. macha allah Sadio Mané ku ko roy ku ne. parce que alxuraan di nga am lu bëri ci football. xale boo xam ne dem boîte xale xamante ne këram entraînement jàkka ja kooku yàlla na ko yàlla jàppale. te ku ko roy ku ne joueur sénégalais bu ñu ko royoon tey waxuma laa coupe de coupe d' Afrique comme ni ko euh, euh, meilleur joueur euh, kii ni mu ko waxe brésilien bi. Hmm. ni mu waxee ne coupe d' Afrique coupe du monde bii ñëw Sénégal gis na mu sori fu mu sori. billaahi boobaa di ngeen xam ne Sénégal dina sori. am nañ ay joueur am nañ capacité mais li ñu manqué mooy liggéey. Mm-hmm. nañ liggéey booy nañ liggéey loolu leen dañ ñaan bu leen liggéeyee club bi ñoo leen di soxla di leen xëccoo mm-hmm. journaliste yi ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di ñu ngi leen di xam nga lancé mais yéen tamit da ngeen war a lancé seen bopp bu fekkee yéen a ngi déglu émission yi mm-hmm. ñun amuñu kudul yéen seen liggéey mooy seen problème mooy laan ngeen liggéey ndax jour boo liggéeyul ak ah, mais boo demee ci club dañ koy xam ñoom dañ koy xam dañ lay teg ci banc bi parce que Sadio Mané est ko teg ci banc ñamewu ko teg ci banc bi lu tax parce que dafa liggéey lu ko lu koy may mu nekk titulaire kenn mënul jël place am kenn mënul xëccoo place am Sadio Mané bi dañ ko bëgg mu noppalu. d'accord merci. keroog seen na moom mi ngi mel ni Sadio Mané mi ngi mel ni sax pertul mm-hmm. a nekk en forme. <laughs> amul mm-hmm. leneen looy def lu dul liggéey. Mm-hmm. nga am nga am nga am ci résultat. merci beaucoup Saro, merci pour le message à l'endroit des joueurs mais aussi merci pour les conseils Mom, il n'a pas utilisé le dos de la cuillère waaye mm-hmm. tamit ay conseils la yoo xam te euh, Mbaye Diagne il a ko utiliser ngir a relancer waat carrière am. Mm-hmm. li ko li ko en tout cas que bu ci mu mën nek ci club bo xamante dafa am temps de jeu mais itam mu way ñu mu wan ñu Mbaye Diagne bi nga xamante mom lañu gissone ba ñepp ni Mbaye Diagne obligatoirement il doit être convoqué en équipe nationale du Sénégal et il a dit menace baa fi ba tey na yenn xalé yo xam ñi ngi ñew te buñu ñu ba dugg ci bi équipe nationale bi prouver lañ fay prouver dinañ fa naqaree day jëti. comme ni mako ko place bi mom kenn momuko mhm. donc euh, jëlee internet bi allo. wa maaleykum salam Allô? Allô oui c'est mieux les idées Allô je pense que d'un un problème réseau. <laughs> wala mu doon ne la dooga yeew. <laughs> donc loolu l'a wax ma place bi kenn équipe nationale bi sànq ni mu ko ni mhm. ceux qui ont ceux qui sont plus performants méritent hein, de mhm. jouer donc je pense que loolu c'est c'est évident loolu quelle kenn werante wu donc mhm. critère de performance dafa bokk ci joueur boo xamante mhm. il est performant en club ba pare am temps de jeu loolu moom kenn n'a wu ko maintenant c'est à lui je pense qu'il est conscient de cela. et mhm. qu'il va faire le bon choix par rapport à son avenir et que mercato bi tàmbali donc actuellement fi nga xamante ni moom mooy France convoité nañ ko dëkku naari Chine. est-ce qu'il va retourner en Turquie. son avenir wala son destin et entre ses mains. Mhm. en tout cas nous lui souhaitons bonne chance. Mhm. du courage mais dans na jël avenir am en main te un jour où xam Sénégal sénégalais de dañu am ci parce qu'il fait partie des attaquants et au ne nii équipe nationale du Sénégal. Mhm. donc il faut mu choix pour que carrière am mu il faut qu'il soit entouré des gens et au ne nii dinañ ko pour carrière carrière mën parce que la plupart de nos joueurs leur problème c'est l'entourage. Mhm. L'entourage entourage. Mm -hmm. dafa am solo ci carrière footballeur surtout dans ces moments donc je pense que leur moment mo ci am solo et que euh, le meilleur reste à venir. mu mhm. ngi noonu loolu lañ leen indiloon tay ci thème bi ci Mbaye Diagne euh, Mbaye Diagne euh, mi ngi un comportement qui gâche un talent mais un talent qui peut toujours faire de grandes choses lolu des na ci mom mom moy set ban décision lay jël pour daal relancer carrière am bi daal def des choses extraordinaires comme on l'a dit des choses yi nga xam te moom moo ñu émerveillé won bañ Aliou Cissé euh, nako convoqué équipe nationale du Sénégal mom tamit Aliou Cissé mu gis talent bobu non ci Mbaye Diagne et ce qu'il peut faire devant les buts ba daal koy wo équipe nationale du Sénégal Diop ma bay la nga tàggatoo ba suba. d'accord di tàggu internautes euh, di di lañ jox rendez-vous demain Inshallah même heure. di leen mm. wax né antenne libre le thème yuñ fi waxtané yépp incha dinañ ñëw.